jërëjëf mbokki internet yi bor a ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen ndokkeel ak fooy mën ne del soit ak kenn ci beneen jotaayu xam-xam ki ma ci àndal dama koy wax saa su ne suma koy wane ne bi ñu xamante ak léegi wax dëgg yàlla léegi mu romb fukki at ak juróom ma fekk ay dëbeem muy góor yàlla di ñaankatu yàlla di borom xam-xam di nit ku yiw nag wax dëgg yàlla di nit ku baax di sëriñ xaarim loo di suma xarit wax dëgg yàlla nee naa ku nit ki xam fukki ak juróom ànd boobu dëgg la sincère na wax dëgg yàlla yonent bi tey nag ñu fas yéene waxtaanee xam-xam di ko xam ne yàlla may na ko xam-xam ci wàllu ñaan yàlla waaye may koy it xam-xamu garab ma dem ak kalaay sama rek doy na sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk ci mim réew waaye tey mbokk yi dees na ko waxtaanee si xaarim bu rëy lay nuyu di la ziar. waa kay auzu billahi mina seytaani rajimi laa xawla wala quwwata illa billahi al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 wàllu ndoxum siti wàllu néew kattan di ay garab yoo xam ne bi nga koy jëfandikoo ak léegi di jëfal jaam ñak léegi yàgg na yàgg na lool te li li ëpp solo mooy fi nga ma fekkoon defe naa fi nga fekk ba tey mhm. at yi ma nekk di ko def ndeysaan <laughs> ndoxum siti hémorroïde néew kàttan waaye nag buur fan yi am naa garabu estomac gu doy waar ki ma ci mujj faj barki démb dafa dafa dem ñu dugal ko raakol nee na ci biiram bi lum raakol mhm. <laughs> xaw ma nu ñu koy defee rajo yooyu mhm, fibroscopie suñ borom seere na ko ne yàlla seere na ko alxuraan benn benn garab laa ko jox benn yoon la ko naan ci la ko faj maanaam damay bëgg a dimbali rek ñu am am estomac du question soxla ci xaalis mm-hmm. mais nu la estomac mën a def xam estomac mooy mooy li nga xam ne da lekk maafe wala nga lekk guddi wala diwlin mu nekk sa xol bi di ko di ko di ni muy def ñëpp xam nañ doon na la bëbër set très bien loolu yàlla dama ci amee garab gu gaaw waaye li nga ma laaj defe naa moom yàgg naa bu ñu ma saan def émission dama naa la jëruñu ci wax muy hémorroïde ndoxum sit néew kàttan rawatina néew kàttan ndoxum siti mën naa cee faram-fàccee man ma dem ba kalaay sama maam ca Mbartiñ ma dëkk Kër Matar Binta. jànge Faas Touré euh, goog Serigne Adou Touré alxuraan muy sama muy sama cosaan diggante Daaru Musse li ko wër yëpp xam nañ kuy ma dem ba kala. muy loo xam ne dama ko dama ko doon muy muy faj ci garab. ndoxum siti yàlla may na ma ci loolu wax naa ko waxati ko. muy dagg say weeg muy muy dagg sa karaw muy ruus ak muy lakk saw yaram booy xeesalee kenn doxam lay nuru mu jàpp sa yaram ngay góor munoo fexe ba am yaram. Mm-hmm. mu dem ba indil la émorite mbaa mu dem ba indil la néew kattan ndax ndoxum siti mooy ndey ji moom ci eh. moom la feebar yi déparé ba yooyu yëpp mën a ñëw nu la ndoxum siti mën a def daanaka yaatal gi du ko mat garab yi daanaka mi ngi nii yàgg naa yàgg naa di ko wane hmm. nu la ndoxum siti mën a def bu soobee suñu borom tabaraka wa boo jotee ci garab yi nga nekk biir réew nga nekk bitim réew te man samay garab fi ne benn bii rek ni nga koy gis ni da ko naan juróom-ñeenti fan lii li tuut tuut nga koy naan li tuut tuut parce que góor gi ñuy defaral garab yi gi ñuy wutal garab yi nga xam ne mënutuñoo taal oto dem ba Màkka Kulibantang te dem ba ci dëkki àll yi Medina Gonaas mm. góor googu fi ne dañ koy fay xaalis bi wax taal fanweeri junni bu ñu jeexalee garab ngir mu defar mu wutal ñu garab yi indil ñu ko ñu walal suñu bopp composé suñu bopp garab moom da nga koy xam mën a jóg wuti ko waa mbaa nga wut ku la ko wutal indil la ko nga composé ko normal ko ko naan wér ndoxum siti mm-hmm. loolu Sénégal dama laa yàgg wax ne kenn mënuma ci ndoxum siti mm-hmm. soo ko naanee léegi-léegi ci guddi gi ni ngay tuure ndox ak ni ngay ngay lekke moo lay lay faj garab soo ko naanee léegi wonu la benn effet léegi-léegi ba nga jël ko teg ne te xam ne mun laa mm-hmm. ak ni ngay ni ngay ni ngay nelawe ak ni ngay lekke nga xam ne doo mën a suur ak ni ngay amee ñetti fan ñeenti fan ñu naan la ah, yow kat da ngaa commencé am yaram temps yi moo lay wan yaa ngi wér. da koy nga ñu bari foofu la ñu amee danger ci garab wolof. mais tuuti tuuti tuuti. mun ko utiliser neuf jours kon cela veut dire que yoon boo xamante ñu bañ ci abusé wu. waaw parce que garab du xam ne dem ñu jox ko lu mat mbuusu garab. wala yu bari te garab bu ñu xooj ba noppi jox la ko nañ koy moytu lii ku dugg ndaw nga ci jël moox la ni nga koy defee te doo naan garabaay gi wallahi lancim boo ci naanee ba mandi teg ko ne balaa mat 30 minutes da woote ne sëriñ bi sa garab gi lu mu doon parce que ni ngay tuura ndox ak ni ngay nelaw ak ni ngay lekk garab gu lay nelawloo di la lekk loo di la tuurloo ndox moom xamal loolu da faj nu la ndoxum siti mën a def ngay jigéen ngay góor ak foo mën a ne ci àdduna benn sachet bi sax daanaka booy xool tuuti kon mu doy nit ñi nag dañoo xaw compliqué mm. nga daal dégg ku la woone nit mbir mun laa dal fukki fan nga faj ko ci benn fan dañ bàyyi loolu kon da ngay jël traitement non bu dee ndoxum siti bu fekkee hémorroïde la garab yi lañ koy fajee mm-hmm. mu gaaw ci loolu li fi ne lii li muy tuut tuut kopp si maa ci xam daal <laughs> maanaam ñaari ñaari partie lay nekk kopp si li muy tuut tuut mm-hmm. boo jëloon lépp def ko ci butal doo ko naan faaw nga xaaj ko deux parties mm-hmm. benn partie bi ngay naan lu mat trois jours soo ko naan beneen partie bi bu fekkee hémorroïde bi ne ci biir la nga xam ne moom voilà day jàpp seeram muy ñiisaan bi tàng articulation yi di la sonal loo lekk du rees nag moom foo toll si gi ngay ngelawal soo demee ci toilette doo fa génne dara loolu da cee gaaw bu fekkee nag bii génn la moom def picc nag benn partie bi soo ko naanee beneen partie bi daanam nu ma la koy def loo hmm. du ma ko leeral ci télé bi waaye boo ko defee noonu picc bi su génnoon ba mat lii soo ko ci diwee ñetti fan bu soobee yàlla picc bi dem te dootoo ko gisati ndax hémorroïde day nekk loo xam ne day déparé fii ba pare génn hmm. da hmm. naa laa ñaar ba ñett mais li muy tuut tuut nii moo gën a gaaw ci hémorroïde da koy dindi ba mu set wecc jërul sax may faram-fàcce ci leneen moom mm. ko hémorroïde daal woo ma rek bu fekkee néew kattan la moom mooy jàmbaar bi <laughs> kii moom boo gisee ma def ci benn ronron bi mooy benn kudd rek nga ciy jël benn kudd képp kudd googu dangay toog ñaari fan sax soog koo jëlaat ndax doole ji daa bari mm-hmm. li nit ñi bëgg moom la garab gi di def mooy nit ki naan ko léegi-léegi ànd ak soxnaam léegi soxna sa laaj ko li nga naan lu doon mm-hmm. waaye nag defaruñ ay garabu tubaab ñu ngi koy giñ sëñ tubaab alxuraan duñ laa garabu tubaab lawal man xam naa la composant sunguf bu mel nii yombut a gis ci àdduna ndax maanaam composant sunguf nit naan ko léegi-léegi daal yëg boppam léegi sàkkaram boobu koŋ loolu yombul ci ci sunguf mhm. waaye nag yàlla may nañu xam-xam ba waaye nag danga koy traité wu da ngay traité wu waxuma la nga jël ko rek ngir bëgg nga koy jël saa yoo yittewoo soxna si jël ko bu noppee pare nga ci loolu baaxul mhm. lii da koy jël ak yam war a àndal nga traité wu set wecc ci dootoo ñàkk kattan mukk ci àdduna nga nekk biir réew nga nekk bitim réew boo dégg may dégg bitim réew mooy ma koy tudd mooy man daanaka sama liggéey li ci ëpp waa bitim réew ñoo koy gën a soxla sax xool donte Sénégal dama fiy liggéey mm. waaye bitim réew ndeysaan dama leen di faral di yërëm ci euh, garab yi ñu toppi naan rek te xëy na duñu am duñu wér ndax dañ lay woon ndeysaan ne naan naa garabu kii garabu kaa te prix bi ñu leen koy joxe seer seer goo xam ne man damay sax waaru ci yàlla mm. yàlla suturaal na ma sama garab seerul te bu soobee yàlla foo mën a nekk danaa ko yónnee GP te boo ko jëlee wér incha allah bu dee néew kattan bu dee nag kat yi ay ay fibrome nangam nangam articulation yu métti muy euh, fatiguement général yooyu yëpp garab yaa ngi fi mu ngoog waaye nag comme temps bi dafa gàtt dañuy faram-fàcce ci ñett yooyu rek boo dee ñu jàll waaw jërëjëf mu ngi noonu wax naa ko dëgg la lu ko yàlla suñu borom xam loola te lu mu man la aussi ndax def na ci ay résultat man mi sama njaboot léeg ñu am ci yu mel ni hémorroïde yàlla xam na ko moom mi bokk na ci ñi may dimbali te li gën a yéeme ci moom mooy surtout hémorroïde bu la ko xasee ba fajal dootoo ko di sa giru dund kon macha allahu rabbi sëriñ bi ginnaaw sunguf dafa am lu nëbb muy baatin buñ ko waxee di ñaan yàlla ngay doomi seetkat mhm. di surtout ñaankat mhm. koo xam ne sama am dem ak kala dañ naan yeew ab dof mhm. indi mën a mën a tekki leen te ñibbi <laughs> waaw mu ne danaan tekki leen boo boo desi boo jéemee di diital mun la kon demal sa yoon te wallaahi li muy wax tafli ko ci nopp bi su ko tekkee mun a cocc moom dof bi mooy wax li koy faj ma dem ba Kala Njaay mbarti ñi ngi may dégg mm-hmm. mm-hmm. wax loo xam ne la parce que ñi ngi may dégg mm-hmm. ma dem ba Kala ñëpp dégg nañ ko faji dof moom ak saytaane moom bu soobee suñu borom yàlla saytaane tund wu nekk ma dem ba Kala tund wu mu nekk saytaane du fa du fa traversé xam-xam ba tey ci lay ñëw baatin bokkut ak bëti neen waaye baatin koo gis si télé mu toog naan am na ku ma gis bërki dem benn xale bu ndaw ay mbokkam war nañ ko wax mu dal gone kooku waaw waaw baat baatin baatin kenn du ko kenn du ko weer ki am baatin dëgg du ko wax mm-hmm. ñun ay taalibi Sëñ Tuubaa simple lañ di ay Baay Faal nag donte nag euh, sukk ñu jëblu ci Baay Faal waaye nag ñu dañoo sopp yoonu Baay Faal doxin wa mm-hmm. liñ bëgg mooy doon taalibi Sëñ Tuubaa simple di liggéey di ñaar waaye man Aminta Njaay sama yaay mm-hmm. ku ne xamoon na ko ci pitaaw dañ ko ci doon rang ma dem ak laay sama maam ku na ko ci azrar sunguf ak reen moom fi ne li ko jox xam-xam mbir la woon ca daara jëm doon jànge dama ciy bañ a ñëw muy gudd waaye xaadim loo njaay daal moo doon xam-xamu ma demba kala boobu di ko def diggante kayit yu nit di wut ci Europe mu la wala bëgg tukki fu na nga dugg fa yor sa xaalis tàkk ko te dem wala ngay see góor mu jël la teg ne wuti sa morom sànni la ci àll ba muy côté noob wala nga bëgg wërsëg ubbeeku tëju wala nga bëgg kaaraange gu wér lu jëm ci côté ñaan wàllu ñaan képp koo ci xam ne yàlla boole na ma ceeg yow suñu jëflante ca ngay xamee kan mooy sëñ xaadim loo man du ma ne manum lëmm manum lëmm du fa fekk lem mukk ci lëmm mm-hmm. waaye daal ki yàlla baaxe ba yàlla boole koog man ci côté ñaan mu ñëw muy wàllu kurus muy wàllu xalwa muy wàllu sarax muy wàllu seet seet nag moom buur yàgg naa li da wax ne moom téeméeri seer yu bokkul barkeb sëñ ma paati silla dinaa seetal nit te du ma ubbi téere billaahi la si nit dana ma woo kar téléphone ne ma damaa bëgg a seetlu ma ne ko nangam ba ci mujj mm-hmm. àgg ci maanaam jëru may ubbi téere damay toog ne teg nga jox ma sa tur yaay ma wax la loo xam ne kenn du ko diñ barkeb sëñ Tuubaa te du ma xool téere loolu ndono la ak loo xam ne yàlla sax da ko man moom seet damaa defee ne yàlla moom moom ma ko baaxee rek mm-hmm. waaye wax dëgg damay dem ba damay seet damay jàkkaarloog seetu nii di ko xool di la wax loo xam ne dara du ko dindi waaye nag dama ca yàgg di ko tërbiyu ñaan des koy tërbiyu waaye nag nga sellal sellal li ngay def ak jubal ak jubal képp ku la woo ab sëriñ li nga xam ne mooy ndamam bàlla gi lu mu bëgg a def boo tafaatin daan ko sëriñ li mu bëgg mooy bu la ñaanale mu sotti mhm. bépp sëriñ boo xam ne da ngay ñaan te doo am résultat doo ngaa dem langi ci car rapide yee nag li la koy may mooy ñeme turu yàlla ak jubal sa digganteeg nit ki xool ci yàlla bu la joxee nga liggéeyal ko waaye bu la joxee nga tëddi nelaw sab kilim bëgg nag aajoom faju yaa ngi nax sa bopp te ñu bàyyi clients yi ñuy woo client yi weexal la suba nga woo ko ne ko man gént naa gis naa nangam nangam boo defaatoon nangam tappale yi képp kuy tappale yàlla du far ak yow man nag sëriñ xaarim loolu tappale wu ma damaa dëggu tiital ko yóbbu fitam yokk ay frem waaye daal moom bayre wala noob wala kaaraange wala maanaam tëju bëgg a tijj ko yaramu naqari wala yaramu naqari ndax nit bu tëjoo mënut a lijjanti dara mu sotti mm-hmm. képp ku ko am na la yàlla boole ak sëriñ xaadim loo man du ma tappale du ma fen ci dëgg lay nekk te wutuma xaalis ci demee waaye fii du ma a jóg ci àdduna sëñ na ay kër de man fii fii ñëw is xam ne amaguma soxna barke borom Touba waaw loolu pourtant am na ay kër de <laughs> barke Cheikh Ahmadou Bamba am na ay kër waaye fii du fi jóge fii du ma fi jóge mu ko ci ndax ci dëgg lay dox man client yi may seetal sax wala ma leen ñaanal dañ naa ma sëñ bi yow da ngaa xaw a naqari damaa dëgg man li may def du ci font na dama ko doon te dama koo man mm. du mbir ba pare di ci fen kenn yow mi yor sa 500000. Mm. man sama bi moo ma ëppal doole sa 500000 yooyu mm. kon du ma la fen baa may ñàkk fay sa kanam kon daal buur képp koo xam ne ni wàllum ñaan yàlla dogal na nga am loo ci soxla man du ma ne di faram fàcceeg yooyu wool sëriñ xaadim loo man nag sama lépp ci seet lay waaw ci seet nag lay lay jaare moom sama lépp moom ci seet lay jaar doo dem ci médecin mu fajal la si bourse te consulté wu la man damay seet ba pare soog a xam fan lay teg sama tànk sarax su ma la ko génneloo nga génn ko suba nga gis li ma la wax mhm. ku ma seetal te tamit wax koo génne man jëru sax nga may seetloo parce que seet moom sarax la war a génne nga def sarax yàlla ubbi saw yoon mhm. ñu seetal la wax lay sarax nga jàll ci keneen mu seetal si mënuñu dara fekk yow yaa defut li nga war a def mhm. man su ma la seetalee dama lay wax sarax soo ko génnee suñ borom tegal teg la ci yoonu leer nañ soo ko génnewul nag man boo ma seetluwaatee du ma la seetal. Mm. parce que nag ñaan moom seet da caa jiit kon daal loolu laa loolu laa may kii. Mm-hmm. mu ngi noonu. Euh, nee naa bu ñuy waxtaan ak moom wala ñoom ak moom jotaay lu ñuy lu ñuy neex la ndax nee na ginnaaw bi mu donnoo dafa sàkkuti tarbiyu nag mm-hmm. man mii fekk naa ko fa mu doon tarbiyoo xam-xam ci kër sëriñ yu bari daa fekk naa ko mu segg kafe ba taay mm-hmm. fekk naa ko fu muy doxi yónnent lépp rek ngir sàkku xam-xam tey la mu faroon sàkku tey wax dëgg yàlla feeñ na ndax nee na dëkk bi dara na buuf fi te ñun ci internet bi lañu ne mooy gisuñu kenn ku ñu mën a jaral a toog comme nii ma toogee ak moom di seere ci mu dul dëgg wër na sëriñ Mbàkke Madina waaye dafay nit ku baax di nit ku jub di nit ku dëggu di borom xam-xamit ci lii ma ko xam ak ci nii mu mel nii la mësa mel mel suñu ko fekk ci caaxaan mus ñu ko fekk ci ay po am po bu la neexee nga dugg ci internet bi nga tàppe Serigne Khadim Lo Ndiaye ci lii rek nga koy fekk amul ci leneen loo koy fekk ak bëgg Serigne Touba ak ne ci ak di doxee xitma lii nag di jataay boo xam ne gaa ñi sàkk woon nañ ko te yàgg ko sàkku sëriñ bi balaa maa dem rek da nga may ñamal butéel gi. maanaam butéel bi màkk kuli bant génn góor gu fa nekkoon am na ñu may dégg ñu may xam ñoo xam ne dañ naan la butéel ba su la ko joxee at baat nga ciy laal butéel bi fi ne nii. Mm. man ma ci laalee soo mu laa ciy laalaat. ki ma ko joxoon dama koo tër bi tuuti diggante bu gàtt mhm. mu woo ma yeewi ma jox ma secret bi ne ma nag jox naa la loo xam ne musuma koo jox sa doom te yaakaar ma dinaa ko jox góor ga faatu na yàlla yàlla yërëm ko mhm. waaye buur fi ne su ma juróom-ñaari fan ci biir suuf si soog ah, la ngay la ma lay jox nga di ko sango day ànd ak bëñ bukki mhm. laa <laughs> ilaha illallah maanaam maanaam foo bëgg àgg ci àdduna mën nga fa àgg bu jël mën la faa yóbbu ci wàllu wërsëg ak yëkkati ko ak bayre lii gone du ko sango gone du ko laal li ci baax sax mooy boo ko laalee benn yoon baax na li nga wax léegi ci tërbigu rek jaar naa Bissau tërbigu jaar naa Makka Kulibantang jaar naa biir Tamba jaar naa euh, biir biir Gambie biir biir biir euh, nu ñu ko waxee Casamance ca côté yi Daaru Salaam am na sëriñ bu fa nekk jaar naa fa tërbigu ci xam-xam xam-xam das koy jàngi doomi diw ràkkal képp la mm. ma ma dem bakale sama maam doyut waaye da ngay sàkku ji xam-xam te yow xam nga loolu ci man moo tax aajo yi ñàkk a fajoo fii bariwul de déedéet bariwul de <laughs> bariwul de te ñaanuñu ko yàlla <laughs> kon daal loolay loola loola doon loolu kaddu yi bëgg nañu sëriñ bi lool waaw ñu ngi ñu ngi nuyu ñëpp nag di ñaanal suñu mm. président mm. Bassirou Diomaye Faye yàlla gën koo jàppale mm. ah, la tey opposants yi xaw a tey tuuti rek ñu def ndànk yàlla baax na ah, làmb ji di ñëw nag dina am lu ma la ci nii waaye xam naa ne naa wax làmb ji di ñëw rek bañ a wax benn làmb waaye li ma la ci wax daal bu soo yàlla danaa la ko téyeloo nga teg ci sa bët bu soobee suñ borom yàlla bu jàllee. Mm. moom mu doon lu leer nañ ndax yow sa moom ku ci wax war naa wax laam. waaw waaw mu ngi doon kon kon tabaarakallaa tabaarakallaa jërëjëf di buur géwél. macha allah kon gars yi ñu leen di leen jox dig daje rek incha allah ba beneen yoon.